liggéey. sëy boo gis ñaara ko lal communication compréhension baat boobu wax naa la ko yoonu yoon ni la njaga li ngay neexalee ki lay àtte boo ko joxoon ki lay door kii du leen dégg toogal ak sa borom kër. Adja sëy boo gis moom am problème li ko waral mooy ñàkk confiance li ci ëpp boo ñàkk confiance góor boo gis mu ni soxnaam bu liggéeyati am na lu fajaar lu yàq xelu jëkkër parce que nit nit la rek. mais problème bi mooy ñaata jigéen njaga ba fii ma lay wax yi tey ay avocat lañu wala déet ah ñu ngi seen ay borom kër ñii seen i jëkkër ay ay si lañ sant. mais nag Mouhamed am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni bu seen jëkkër di liggéey bu seen jabar di liggéey ba am baat ba ñu mënoon a am baat ba ñu waroon am duñ ko am. loolu nag ñàkk confiance la ñàkk la pour man. faiblesse la sa bopp pour man faiblesse la. parce que ñun jullit suñu royukaay yonent bi la bàyyil xel ni ndax ka mu doon sëyal moo ëppoon personnalité màkkati jigéen la muy benn bàyyil xel ni ka mu doon sëyal magee na ko fukki at ak juróom muy ñaar bàyyil xel ni kam doon sëyal moo ko daan fay salaire xadijatu dafa daan fay yonent bi salaire parce que moo ko jël teewul yonent bi téye kàddoom ba ne xadija wuy jë waaw oustaz mhm. xam nga da ngay génne diine kenn amul lu ñuy werante ci diine duñ ko xool duñ ko laal li yàlla wax moom la wax waaye loolu nga wax ci yonent bi léegi moom ak soxnaam loolu du jàngale wér xam nga loolu jàngale la xam nga soxor weesuwul yow ngay liggéey mën a jariñ sa bopp nga jàng amaan na dàqoomaa jàng sax yow ngay liggéey di fayeeku sa saleer di faj soxla boo boo fayeekoo li ngay njëkk a def mooy dem ci sa yaay génne sa xaaju salaire jox ko jël sa rekk fayal ko jàng sa jigéen ba nga xamante ni mi ngi ci kër gi amul liggéey nga jël xaalis jox ko man mii sa soxna aw ma loolu bu weer deewee aw ma lu ma jox sama yaay aw ma lu ma dimbalee kenn aw ma lu ma jënde tablette paracétamol pour dimbalee ko sama yaay boo tëddee da ngay jàpp ni yow da ngay inutile amoo loo jariñ kenn nga jël nag sa àdduna yëpp taxañ ko lem ko jox ko benn góor boo xamante ni moom faalewu la man genre góor yooyu laay waxal. góor yi nga xamante ni dañoo jël jigéen jàppe leen jàmm. bu ñu bëggee bu ñu bu ñu yeewoo sax di dinañu dinañu def lu tout defaluñ la dara de waaye dinañ la def lu tout ba déranger la ba indil la coow bu suba teel ba wan la ni la yow dangaa bon ndax sama benn kawas maa ngi koy seet gisuma ko te xamuñu ban état nga nekkee. dafa am góor ñoo xamante ni dañu nekk Sénégal di fitnaal ay jigéen ñooñu jaruñoo jox jabar parce que xamuñu valeur u jigéen mooy lan. ma joxe numéro téléphone bi 88 la 628 89 90 ngeen bës de 88 628 28 28 ngeen bës de Mabak Mam Sidi euh, ku dugg ci téléphone bi rek euh, di joxe xalaatam euh, wala mu ku ko dund mën naa dugg directement. kon sànq bi ma la déggee ci sa xalaat say wax moom mooy Xadija liggéey ba mu doon liggéey moo tax mu mën a fay yonent bi salaire. waaw attention xadija ba muy liggéey mhm. l'islam xewul bi l'islam di xew am na yonent bi bi muy am 40 ans xadija ay atama ngi yéeg bàyyil xel ni ma génne ko 15 ans kon bi yonent bi am 40 ans xadija ngi ci 65 ans dafa am loo xam ne aada la xadija di ko def yonent bi am 25 ans ñu tegal ci 15 ans ci kanam fekk na nekk na mhm. tey jii damay wax ne multimilliardaire mais sëy boo gis tey communication compréhension la mais du wax naa la ni démb liggéey bu wàccee ni ma ndax duñ dem HLM parce que day jëndi bagage damay ànd ak moom mu dem jëndi bagage. Mhm. mais est-ce que am na góor boo xamante ne attan na loolu. mën na ni ko aw ma sa wala nangam nangam sëy bi day am toog waxtaan alaaji kat nangam bi laa bëgg def ah soxna si kat nangam bi mën nga koo def mu nekk parce que euh, ay at ci kanam da ngeen di màgget renouveler bu nit di am doom tëlee tax bu nit di wut doom ndimbal a tax am na koo xamante ni yor na lu dul jeex ci ay doom ba tey këram moo fay joxe dépense parce que ñi mu jur danoo yara dal amul kenn koo xamante ne daf ci tekki est-ce que doom yooyu tey am na nu valeur am koo xam ni benn doom la am mooy faj buumu gàccee ndayam mooy faj bu mu gàccee baayam mais dama wax ni la règle boo gis am na exception am na góor goo xamante ni même bu jabaram amul sax bu mhm. solo da koy naqari. ustaas ustaas man dama gis góor ñoo xamante ni man dama ko gis laa wax. góor goo xamante ni mi ngi ñetti jabaram ci biir këram nee na bu dajeeg jabaram di dem marché dina ko fase jabaram bu mu génn jabaram amul téléphone. benn jabaram yorul téléphone. Mhm. nee na damay dóor samay jabar. moo ko wax ma dégg ko. Mhm. ba mu ko waxee man dama choqué. di ko waaw di ko ndamoo dama choqué sama jabar du yor téléphone. Mhm. donc dafa leen a dugal ci kër gu rafet. mais daf leen a tëj. amul dem marché di nga dajeeg ay góor ñuy dem marché di nduggi nga ni ñii ñoo baax dañoo yërëm seen jabar. yërëmuñu seen jabar dañoo bëggee ŋàppaaral. gis naa koo xamante ne buy génn di liggéey day takk saaku ceeb bi def ci tere. góor góor. def ci def ci tere ndax bu ñëwee bu fekkee kooku bu waru ci may yaayam waru ci may sëram waru ci may dëkkandoowam bu ñëwee bu fekkee mu wàññeeku musiba naaru laay buy génn day jël paquetu suukar bi mu konteel ko suukar yi am na loo xamante ne jigéen buñ ko teg nga nangu ko bu la ca dal dagan na buñ dajee woon muy góor buñ sëy altine ñu tàqali koo talaata Adja man konteel mu 1000 sëy yaa ngi dégg kan mooy takk sëy du kaw asamaan lan koy takke jaga waaw sëy asamaan kon yàlla mm-hmm. ndax dafa nekk ndax yàlla dafa nekk buur bu am jot boo xamante ne mm-hmm. ajaa ndaag danga gis benn jigéen déggal ajaat sax bu sëy ñeenti yoon juróom yoon ñu naan bëggul sëy mais yàlla miy bind sëy di ko dogalee ca kaw asamaanam wala wala yàlla dafa dafa nekk ku am jot ngay ngay ngay ngay sëy di tas yàlla di takkaat bu fekkoon ne décroisé ci yàlla lay njëkke parce que sëy ña ngi koy takkee ca aras wala dé mais saa yoo waree sëyaat yàlla validé ak malaayka yi lillahi lillahi taswijun mais problème bi mooy waxuma la loolu dafa am góor ñoo xam ni bu ma doon maye sama doom nettali ma li leen di def nanu yor château mhm. damay nangu sama doom indi man Mouhamed am na jigéen ñoo xam ne bu ma dajee woon ak ñoom gis nga détail bu bari baaxul ci sëy dama lay woon ginnaaw dem parce que mhm. jëndkat sax bu jugee di jënd mhm. bu duggee ci marché bi dafay xool léeg-léeg nga yëkkati ba borom da ngay jënd nga tegaat ko fa am ku ko léeg-léeg nga gis loo xam ne da nga koo bëgg jënd ko ci prix boo xam ne 1000 francs nga ko jëndee dem am ku ne la mooyow dan laa nax jënd naa ko 250 bu mu la naqari nax daf la koo jaral jigéen bu ne am na kubéer gu mu war a àndal góor gu ne am na kubéer gu mu war a àndal njaga si kenn matul dañuy mottalante kii dafa manqué nangam kii manqué nangam mais li ma manqué te gis ko ci dama koy jëli mais ñii bu du ma leen may doom man Mouhamed Mbaye doo may doom góor buy détail ci wàllu dund ceeb bi nangam ak diwlin ji nangam santal yàlla may ba koy joxe. Mouhamed àdduna dox na. waaw. Serigne yàlla yokk leeram. amiin bàyyi Seydi Seydi mu am Moustapha Sy dafa wax ni nduroog sa jamono moo gën nduroog sa baay. Mm-hmm. waaye ci waxin gu yaatu waxin gu am dégg-dégg la gis nga jamono dafa dox boroom kër yi lu baree bare matalatuñ ko ci seen biiri kër ci lu bari dañ lay laaj sax nga énervé xale yi dem nañu ba nga xam ne seen baay xam nañu ne bu ñu leen laajee dañuy énervé dem nañu ba xam ni seen baay sax bu ñu leen laajee talatuñu lu dul lu ñu lekk la ñuy tal. xam nga luy tontu bi bu ñu leen laajee. waaw dégg naa la. merci beaucoup. bari na xale yi loo xam ne seen ndey lañ koy laaj waaye laajatuñ ko seen baay. waaye jamono jooju nag bu àdduna di dox da ngay dox ànd ak jamono. te doo génn sa aada doo génn sa diine. li nga jamono jii bari na euh, borom kër yoo xam ni góor ñoo xam ni du ñu takk ku liggéeyum. Mhm. parce que xam ni jamono toll. ni jamono toll attanatuñ ko. ko jamono dafa toll foo xam ni am na ñoo xam ni wallaahi ñoo ngi lu dul jeex mhm. man koo jox seen jabar te duñu ñu calculer waaye seen jabar ngi liggéey si yeneen société yoo xam ni ñoom lañuy ñuy fay seen jabar ñoom dañ koy maye temps xam nga lañ si jublu pour bëgg seen jabar di xëy ak di wàcc ndax ëllëg ñoom bu ñu fi jógee. dëgg la pourtant rek weer day dee ñu yëkkati téeméeri junni may seen jabar. Ah, waaw te pourtant société ba seen jabar di liggéeyee cent cinquante mille francs wala deux cent mille francs lañu lañ fay fayeeku ñoom dañuy yëkkati un million lu ko ëpp di ko may seen i jabar ah. mm-hmm. waaye xam la lañ si jublu mooy seen jabar na takk ndiggam tàmm liggéey tàmm liggéey ndax ba kanam moomu ko bu ëllëgee moom bu fi jógee alal nga day jeex moom liggéeyam boobu da koy tàmm ngir yor njabootam gis nga jamono dafa toll foo xam ne nañu jàppale jigéen ñi mm-hmm. nañu jàppale jigéen ñi moo tax man la góor gis nga fii ci biir réew mi fii ci biir réew mi jigéen ñi ngi yuuxu waaye jigéen ñi génn bitim réew ñoo gën a mën a yuuxu fuuf ñoo ngi bëgg a yuuxu ñi ngi bëgg a jabar daggal ko biyee mu fekk si la nga lank ni du liggéey yi te bo ba nga toog fa un an deux ans boo dee ñëw ba ko fa ñibbisi takk fi jabar defal koy teraanga dul jeex jabar ya nekk Europe ak États-Unis xam nga la lañ ci am diw moo nga États-Unis képp